salaamaaleykum waa Post Afrique maa leen di nuyu di leen siyaar yéen ñëpp waaw comme ni ko gisee tey ñu ngi nii si marche bi ñu ngi nii ñu ngi jëm place de l'Obélisque incha allah yéen a ngi dégg wax ji si ginnaaw. ñun lay tuuru kon ñun leen rek na ñuy ñaan jàng jàng kase nañ bëgg tey nag woote wuñu violence woote wuñu violence woote wuñu dara jàmm ak salaam nañ woote moo tax ñu convoqué marche pacifique jóge fii nii. nara dox ba place de l'obélisque inshallah len ah ça fait ba yoon ubbee ba ne jànguñu chaque semaine chaque semaine deux jours nañuy jang chaque semaine deux jours wala une journée deux jours ben jour te du yoon ñun ñuy les élève terminale SI ñun suñu matière favori defaguñ ci devoir defaguñ ci dara te lolu injustice totale mais lan ngay wax nguur gi. may wax gouvernement moo ñu jàppale ñu rek parce que tamit mënuñu recruter fii ay xale mooy de 15 ans plus de 15 ans dem marché xale yi dañuy sonn xam nga lii mënul continuer il faut que ça cesse li ñaan mooy. nañ ñu jàppale ñu jàng parce que ñu jàng rek nañ bëgg soo gisee ñu convoqué marche bi pour tey ñu dégg suñu message la parce que tamit depuis école bu mu ba léegi ñu ngi marche ñu ngi marche ba léegi dara génnul ñun nag bàyyiwuñu di leen xamal encore bàyyiwuñu ñu ngi si marche bi tant suñu problème réglé wul bàyyiwuñu waaw ah, ziar naa la. dox bii de xaw dafa dafa nekk benn benn benn problème boo xamante ni état moo ñu war jàppale. nu élèves yi duñ mënu ñoo yeew yeew suba si tel sa papa di la fa di la di la defaat lépp il sa il se il se sacrifie nos parents se pour seen doom yi ngay dem doo fekk professeurs yi si biir école yi loolu mënul nekk il faut qu'on apprend état moo ñu war a jàppale ñu jàng. tant sa apa apa sa la ñuy def jërëjëf merci doucement doucement doucement doucement doucement nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons kii el lycée Seydina Issa Rouhou Laye parcelle LPR ak lycée Seydina Sim an an c'est Jimmy! Thank you, Jimmy! Wonderful! Yeah! yeah!